mbokk yi nag tey dañoo bëgg ñëw ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci département bu Mbàkke fiñ toll nii may waxee ak yéen campagne bi commencé na waaye coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi ci ay jafe-jafe yoo xam ne fu ko waaye natt paase na ko te loolu mooy dëgg jamono jii Benno Bokk Yaakaar commencé nañ seenu campagne waaye li ñuy daj mburu sax daju ko ci ab puur loolu mooy dëgg gi li ko waral mooy opposition bi nekk ci département bu Mbàkke dafa am loo xam ne moom lañ commencé di campagne mooy opposition bi foo tourné ci mbedd yi ñoo ngi naan bu kenn voteel waa Benno Bokk Yaakaar ndax député yi Benno Bokk Yaakaar yi ca bureau assemblée nationale dañoo rejeté proposition de loi bi nga xam ne moo jëm ci wàllum criminaliser borom ñaari tur yi loolu la opposition bi di campagne yokk si tamit ne bëgg-bëggu bëgg mun Mountakha mooy ñu criminaliser borom ñaari tur yi député yi ànd ak Macky Sall gàntalal ko mun taxaa loolu la opposition bi di campagne fi mu ne nii fii ci Touba ci département bu Mbacké moo tax coalition Benno Bokk Yaakaar sonn commencé nañoo sonn commencé nañ tamit di jaaxle fi mu ne nii man communication boobu opposition bi jël ana nan lay def ana nan la waa Benno Bokk Yaakaar di def ba contrecarrer ko. ba communication boobu du jàll ci la waa Benno Bokk Yaakaar nekk ndax opposition bi loolu la ñuy campagne président Macky Sall ak ay député am dañoo gàntal bëgg-bëggu mun Mountakha ak naan bureau assemblée national député yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar dañoo gàntal proposition de loi bi nga xam ne mbooleem xalif généraux yi si réew mi bëggoon nañ ñu criminaliser borom ñaari tur yi waa Benno Bokk Yaakaar gàntal ko fi mu ne nii loolu la opposition bi di campagne te yéen ñëpp xam ngeen ne. fii ci Touba euh, ci euh, élection yi maanaam benn Bokk Yaakaar mënoon naa gagné euh, quinze communes yi nekk ci département bi waaye su perte commune bu Touba rek mën naa ñàkk conseil départemental bi ndax électorat Touba moo bëri département Mbacké seize communes la man ngaa gagné quinze communes yëpp waaye commune bu mag bii di commune Touba soo ko perte rek mën ngaa ñàkk conseil départemental bi moo tax. ñaari candidat yi benn bokk yaakaar yi commencé nañoo sonn te demaguñ fenn muy Matar Diop mi ñu investir ci conseil départemental bi ak galo Ba ci commune bu Mbacké ndax xam ngeen ne naturellement benn bokk yaakaar dañoo yàgg am jafe-jafe ci département bu Mbacké waaye rawatina fii nga xam ne mooy commune bu Touba ndax lii dëgg mooy ñi nekk ci biir Touba ñu si bari ànduñoo ak président Macky Sall. kenn ku nekk nag boo ko doon gëstu tey kenn ku nekk ak fi nga teg ne ànduma moom waaye dañoo dañoo seetlu ne daal askan wi yeewu Touba jubluwuñ Macky Sall wala ñi ëpp si ñoom jubluwuñu Macky Sall loolu mooy li nga xam ne tey moo am information bi daal mooy Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi si jafe-jafe ndax opposition bi dañ leen a teg fitna. fitna ji mooy communication boobu ma leen wax ci borom ñaari tur yi moom la opposition bi jël ngar dajjoo ko fas yéene ko demee campagne ba campagne bi jeex te mën naa yàqal Benno Bokk Yaakaar lu baree baree bari ndax yéen a ngi fàttali ko élection euh, référendum yi élection référendum yi mooy wii beeg noo bi mbirum borom ñaari tur yi la opposition bi jëlee woon campagne bi noo bi gañe woon genn xeetu gañe victoire buy yaatu boo xam ne ci département bu Mbàkke maara détaillé communication boobu la opposition bi jëlaat nag communication boobu ndax xam ngeen ne euh, président Macky Sall sax bi mu fi ñëwee ci màggal gi fekk sëñ bi nee noonu bu fi kenn politique président def déclaration ne moom mun ta ñàkk politique loolu sax am nañu méttewoon waaye jamono jooju ñu bari fàtte nañ loolu mbirum assainissement beeg xeet yooyu yëpp fi ni ñu bari fàtte nañ ko fi ni daal Touba politique bi mooy ak waxtaan wi mooy euh, opposition bi lii ma leen wax moom la ñuy campagne euh, léegi nag wuréwa dem na këng waxi mag dem na dañ taali man dama leen di wax juste rek fi fi fi fi mbir mi yam fi campagne bi commencé woon deux jours trois jours yi commencé euh, campagne bi euh, laa leen di wax deux jours yi ndax euh, vendredi si guddi tey la dimanche mais li am daal mooy li opposition de campagne laa leen di wax ñi nekk ci Benno Bokk Yaakaar nag xam ngeen ne ñoom ci élection locale yii bii dafa dolleeku si seeni jafe-jafe ndax seeni jafe-jafe dafa bëri maanaam jafe-jafe Benno Bokk Yaakaar dafa bëri ni scandale yi bëree ci réew mi détournement yi bëri ko ci réew mi noonu la Benno Bokk Yaakaar amee ay jafe-jafe ndax xam ngeen ne ñoom seen investiture yi bi ñu investiré Matar Diop ci conseil départemental bu Mbàkke loolu dafa indi frustration boo xam ne ci biir Benno Bokk Yaakaar ci département bu Mbàkke ñu baree baree bare dañ see mer ñu baree baree bare dañ see mer ndaw ñu baree baree bare tamit génn Benno Bokk Yaakaar dem ci yeneen coalition yi même ci commune bu Mbàkke ñu baree baree bari tamit bi ñu investiree Gallo dañoo lank ba tëdd sa naajo mer te te te boo xoolee ci ci ci département bu Mbàkke bëri na ci commune yoo xam ne boo fa demee fi ne nii tey ñetti liste ñeenti liste nga fay fekk te bu njëkk benn liste ñaari liste nga fa doon fekk maanaam benn bokk yaakaar euh, jafe-jafe yi ñu am ñoom euh, ci wàllum investiture rek ak ñi gedd ak ñi mer rek doyoon na ak tuubaa gi nga xamante ni tey mooy commune bu mag bi te ñu bari ànduñoo ak Macky Sall euh, loolu rek doyoon na waaye boo ñëwee nag yokk si nag wàllum proposition de loi bi bureau assemblée nationale gàntal foofu nag mooy problème bu mag bi